waaw li xew euh, pour fàttali ñi nga xamante ne ñooy déglu euh, Zik FM ak euh, rawatina émission Teuss mooy depuis une semaine mën nañu wax dafa am lu nga xamante ne moo xew fii ci diwaanu Mbour muy ay vidéo yi nga xamante ne dafa impliqué ay élèves ay élèves yi nekk ci ay établissement privé il faut le préciser ah. ak ñeneen parce que démb ba ma jokkook nga xamante ne ñoo nekk ministère de l' éducation nationale parce que di di di ko di ko nuyaale de passage muy Mamadou Moustapha Diagne. ki nga xamante ne mooy le directeur de la formation et de la communication bu ministère de l'éducation moom ba mu gisee à la bu tribune bi ak reportage bi nga xamante ne Sen TV def na ko ak Zik FM dafa moo ma daf ma woo ñu échanger ci ci lu bëree bëri donc euh, pour vous dire que affaire bi dafa impliqué des élèves yi nga xamante ne newuñu ci ay établissement public ce sont des élèves yi nga xamante ne ñoo ngi ci ay établissement Euh, privé. mais fi euh, ci diwaanu Mbour. donc fee yi mooy Mantoulaye très rapidement ñëwaat ci. pour ñi nga xamante ne également peut-être euh, xamuñu woon lu xew mooy dafa am lu toll ci trente vidéo yi nga xamante ne à caractère pornographique donc ay élèves doon ko def challenge di ko tourner. Hmm. ci anam boo xamante ne anam bu doy waar anam bu doy doy waar bi nga xamante ne yéen je crois que ku ci nekk ci yéen si seen portable yi am ngeen vidéo yi mën ngeen mën ngeen mesurer un peu gravité Euh, vidéo yi ci euh, anam boo xamante ne daal jéggi na dayoo ëpp naa wax sax ci rajo donc euh, liñ ci man a jàpp mooy tout est ci benn challenge affaire bi information yi ñu ci am mooy lépp dafa tàmbali woon ci ay fonds xam nga léeg-léeg Cheikh Sarr nga gis xale yi ñu ne la ah ñu def genre challenge maanaam daa ko tux chicha maanaam daa ko tux si challenge bi daal moo indi lii lépp mhm, mhm, mhm. donc ñu dem ba affaire bi débordé jéggi dayoo jéggi dayoo boo xamante ne dafa dafa dafa dafa mujjee exploser euh, réseau réseau réseau réseau réseau réseau euh, euh, réseau social bi nga xamante ne mooy WhatsApp parce que xale yi bañ ko doon def dañ ko doon def également ci ci ci ay groupe WhatsApp donc ah, foofu la affaire bi fuité mu mu mu très bien donc après nag benn professeur ci boppam moo njëkk jot vidéo yi alerter alerter les autorités les responsables d'école parce que professeur boobu certainement xam na xam na ñi nga xamante ne ñoo ñoo ñoo ñoo na ci vidéo yi mu alerté ba mu alerté nag ci la yenn écoles yi jël seen matuwaay mais de toute façon ñu ci mën a jàpp pour l' instant ba ñu xuusagum parce que am na ne Mansour man démb maa la ko doon wax am na école yi nga euh, bi nga xamante ne maa ngi koy nuyuwaale de passage Mouhamed Dieye démb ci boppam sax ba mu gisee reportage moom moo mu ne ma mais grand affaire bi yàgg na ba mu amee yàgg na ma ne ko ah. man mii sax déggoon naa ko mais comme ñun dañuy yëngatu ci méccam taskatu xibaar te taskatu xibaar bu bu bu bu lu ñëw rek nga ànd ak mbedd mi noonoo non ngay def recoupement mhm. euh, traitement après nag ci ngay def euh, diffusion donc mu nekk liggéey bi nga xamante ne à notre niveau on a vraiment pris le temps euh, pour bañ a yàkkamti bañ a topp Marie Rondo bañ a topp waxu mbedd def li nga xamante ne mooy recoupement traité ko après ci lañ koy doog a diffusé démb donc lii nag depuis semaine passée la amoon Mantoulaye mais ñun démb euh, lañ koy doog a euh, traité ba mën ko partagé ak askan wi donc mu doon li nga xamante ne aussi lu lu ñuy teg mu doon lu leer loo xamante ne kenn du la ci mën a dut baaraam donc. mais mais mais mais Sonko défi bi lan la woon. ñoom lan lan doon euh, jaayante ci seen biir lan moo tax ku ci nekk. nekk ak sa sa copin entre guillemets di def naka su dul noonu di ko envoyé lan la woon défi waaw très bien Mantou affaire bi challenge bi daal comme ni ma la ko waxee di jégalu un peu ci ci ci ci yi parce que les yenn ëpp naa wax ci rajo parce que ay kilifa euh, ay ay kilifa ñoo ñuy déglu suñuy pap suñu yaay ñooñu déglu et mais challenge bi li ko indi mooy ñii dañ doon waxante non maa la gën a saflee maa la gën a neexlee maa la dàqal say sama yeneen daanu yow sa bos dafa daanu yéen bon yow ka yow da ngay daanu yow bon man gis nga su et cetera affaire la yi nga xamante ne c'est très compliqué man man man après damay ne comment des gens saa yi nga xamante dañoo am yenn âge di mën a di di di mën a am yenn maay ni mën a am yenn xalaat yi di ko ba di ko def challenge affaire boobu man ba léegi je crois que ñu bëri ci ñun sax eh, eh, mënuñu eh, revenir ci benn situation bi nga xamante ne peut-être mën nañ tolérer ay chicha et cetera maa dàq football maa dàq tël ñun daal lañ ko def maa mbay démb doon na ko wax sax ay temps yi dañuy def c'est vrai que amuñu woon téléphone mais dañ ay maa la tël maa la dàq dawal ndege dawal pneu et cetera mais ñoom dañoo dem ba. foofu xale xale. waaw ah, waaye mu ngi tollatuñu si ah. mu nekk li nga xamante ne voilà mu nekk li nga xamante ne. Sonko Sonko. oui nañ bàyyi xale yi seen jamono tuuti neen moom tollatuñu ci dawal mbege. ak dagg ah. fi nekk moom tollatuñu ci dawal ndege. waaw fi ne moom ci yii la gone yi toll léegi léegi Sonko. waaw parce que xam nga dañuy jël seen xam nga wax dawal ndege dañuy la malaaka di dox ni jamonoy doxe euh, mais dafa am lu ci yokkuwaat ci école yi. waaw waaw démb nee naa la fan lañu ko doon defee. mais mais fan lañ ko doon defee aussi ñenn ñoo leen doon fayal. ñu leen doon fayal aussi ñenn ñoo leen dem protéger. ñeneen a mhm. protège aussi am nañu bokkoon ci groupe bi ñu ñamul ñoo leen vilipande enquête bi fu mu toll. <laughs> waaw xam nga Mansour loolu yow peut yàlla def na que mbuur nga dëkk parfois sax dama koy faral di wax mooy am na am na yenn information yi nga xamante ne yow gars yi euh, fii mbuur yow lañ koy njëkk wax yow nga doog maa woone ma. Euh, Alioune Badara toppal dossier bi parce que am diw informé na ma nii ak nii ak nii donc euh, peut-être yow xam nga ci loo xamante ne man xaw mais li ma la mën a wax mooy Mansour lii démb wax naa la que le directeur de la formation et de la communication bu ministère de l'éducation nationale Mamadou Moustapha Diagne ñu koy nuyuwaale de passage parce que il collabore tout le temps avec le groupe des médias surtout euh, rédaction bi démb il m'a appelé lu mat trente minutes on était Euh, lu toll ci ministère de l' éducation nationale scandale bu mel ni frappé le système éducatif mm. rawatina fii ci diwaanu Mbour mu nekk au cœur de l' école sénégalaise donc moom il a fallu mu def ay recoupement à son niveau jéem a peut-être informer ministère de l'éducation nationale bi nga xamante ne dina ci def ñoom peut dans les heures à venir peut euh, bi sax moo tax qualification coupe du monde Sénégal bi moo tax sax affaire bi fii je sais que ñoom tey balaa ñoo tëdd incha allah dinañ def benn communiqué bi nga xamante dina bàyyeekoo ci ministère de l'éducation nationale. Mansour leneen li aussi li nga xamante ne mooy il faut préciser ça mooy yenn yi mooy suñu force de wala police bu ñëw tëb nga xamante ne peut-être. maîtriser mais lii dina permettre que ñoom à leur niveau Cheikh Sarr sànq maa moo euh, ngi koy wax man waxtaan naa ceeg benn kilifa bi nga xamante ne ci wàllu sécurité lay yëngatu wala ci force force mais mu ne lii il xale yi ñu arrêté leen mu ne arrêté bi c'est pas parce que dañ leen bëgg a méttital c'est pas parce que dañ leen bëgg a toroxal mais dañ leen bëgg a arrêté pour seen waajur yi xam ni ah yenn de seen doom yi lii lañ nekkee parce que il y a des yoo xamante ne ba léegi dem wax naa ko reportage dañ dañoo jaaxle jaaxle boo xamante ne ñoo ngi xool ndax si ñoom seen doom yi bokk nañ ci vidéo yi am bokkuñu ci am na ay parents yi nga xamante keroog euh, sànq maa ngi dégg Cheikh Sadi ko wax ñoo ngi artu seen ay doom dina wax ni man de bu fekkee sama doom mu ngi ci vidéo yi mhm. am na ñi nga xamante ne man ci information ma am na ñi xamante ne commencé nañ daw génn dëkk bi mhm. parce que gàcce boobu xëy na na ñoo xamante ne man ay xale jigéen nga xamante ne commencé nañ daw génn ci dëkk bi am na ñu commencé daw waaw mais est-ce que bu ñu fu ñu jëm. mais est-ce que ah, ah, ah, xale yu jigéen ñi dong la aussi. daw bi est-ce que fu ñu jëm laa. mais génn dem. parce que xam nga ay Gambie li jëm wala. Eh, Mansour. Hmm? Mansour xam nga li a doy waar mooy démb yow yaa ngi ko doon wax nga ne am na ku la yónnee message ne la am na ci xale jigéen yi ku mu dajeel kooku euh, mais ko def mu mais tey mais booy dañoo visible maanaam maanaam seen xar kanam ñun ñun ñëpp a ko découvrir à travers ces donc imaginer koo xam ne dafa am kersa mais Mansour. Mhm. am na tamit ku jox benn idée mu ne. Mhm. nañu jéem a xool ñu sensibiliser xale yi parce que bon peut-être jàpp leen répression yooyu mais xaru xaru xaru xaru sax mën xale dem ba affaire bi dépassé mm. a nañ xale kese c'est vrai xale yi dañu leen di xale yi Sonko. Sonko du ay xale kese xale yi tamit alaaji. benn benn instant dañu leen di utiliser. xam nga challenge bi njëkkewul mbuur amoon na fi deux ans si ginnaaw wala deux ans et quelques man jotoon naa fi ay vidéo yoo xam ne dakaar gii la ñaari école benn bee fii benn bee ngi côté bii alaaj yaa ngi may gis. Mhm. su ma paree naa la ñaari école yëpp ban la. Mhm. xale yi mhm. dañoo dem ba ba ba ba ci challenge bi. ba bouteille yii nii bouteille déodorant yii. dañ ko doon utiliser ci challenge bi. ko dugal ci. waaw ay xale mineur laa la ne di utiliser bouteille déodorant yii. Mm-hmm. vidéo yi jotoon naa ko deux ans ou deux ans et quelques ci ginnaaw challenge boobu amoon na gi ci ñaari école moom la ñuy utiliser mm-hmm. yu ndaw ay mineur di utiliser bouteille yii wallaahi mm-hmm. ci ay xale ndaw boobu dama choqué woon après dama mujj euh, effacé vidéo yi daal lii moom du ma ci waxti parce que tellement vidéo ma choqué woon te xaw ma ni phénomène bi nekkate mi ngi law jëm biir Sénégal léegi nag ay xale yoo xam ne maanaam xam nañ ni ay xale lañ seen deret tàng na ñeme nañu ragaluñu ñu leen di utiliser suñu paree nag vidéo yooyu noonu mag ñi nekk seen ginnaaw dañ koy utiliser di ko jaayi. effectivement te xale du ñu xam ne dañ koy jaayi. ñoom xamuñ ci dara ñoom challenge bi rek moo leen ci ñor utuñ ci xaalis. effectivement boo def xale ko jëfandikoo xam ko lay ci. xam nga xam nga. sonko maa ko seetaan. sonko. waaw. mu bind nii école bi ne école. enquête bi moom école temps ñoo leen mën. xam naa ni dina révéler lu doy dina révéler lu doy waar. parce que enquête bi am na ay mat te njoxte ñu ni am na ay jàngalekat yu bokk. sunu hmm? sunu enquêteurs yi buñ ci duggee. enquête bi moom dina révéler lu bëree bëri bëri ça moom c'est sûr. am na ay et puis endroit yi ñu ko doon defee. am na ku leen doon jël en charge. loolu problème xale yooyu. Hmm. ki leen jël ki doon jël en charge leen entretenir. Hmm. da doon ñam. da doon kii. ci xale yi. yu jigéen ñi. waaw na ñu bàyyi xel suñu doom yi nañu gën a am ah, c'est que ñun ñu ngi xool sax parents yu góor yi yu jigéen ñi ñu ngi xool sax mais lu ñu xool doyul dañ ko yokk Sonko waaw xanaa ñu bàyyi la nga tàggatoo Fafa man ni ma choqué waaw d'accord